jàngal e maqaama bu ñaar ak juróom moom la jàng incha allah. gis bu baax a baax. xam ne xam naa fukaahiya la waaye neex na ci boor daal. Mm. da nga ci jàngee itam daal nit ki moom jikkoom. Mm. ah ci nga koy gërëmee léeg-léeg ci nga koy meree léeg-léeg hmm. ah jikkoom ci la ci la lay loree léeg hmm. ah ci la lay jëriñee léeg hmm. ah ñee naa féq léeg nga mere ko fekk dam la féqalul rek waaye bu féqee ci yow nag ñaar la da neex dëgg-dëgg xam naa ne moom nag dañ ko féqal dellu féqee ci moom nag na ko jaru ngay kontaan jaru ngay mer loolu lay wax <laughs> waaw waaw dina ko baax dafa réer le gëlëm mm-hmm. war fas da ko wut mm-hmm. dajeeg Abu Seydin ci àll bi mm-hmm. Abu Seydin nag ko bëccëgee nañ xendal bañ xendalee moom mu nelaw Abu Seydin war fas wa wàcc ko ci àll bi dem den bu baax a baax mu gis gëlëm gi mu doon wut ni tan ko war mënu caa jot Abu Seydin fekk ko faa fasu démb wa kat li ko mu jot ci gëlëm gi nag waral gëlëm gi te dem yow dafa moom mbir mi jarul sant jarul jarul mer. waaw naa moom seddal naa sa xol. naa sa xol. xanaa nga muñee loo démb rek loo tey li suba loo tey li jarul gërëm. waaye loo démb li nga bañ koo mer rek. loolu la rek dégg nga. waaw loolu daal moo ci nekk. waaye nit de léeg-léeg nga kontaan ci moom. fekk jikko ja mere de. dina am léegi. dina ko am de mu ne hakka nettali na xaaris mm-hmm. ibnu hammaam xaaris mm-hmm. nee mm-hmm. miltu jengoon naa fi rayiqi zamani ci njëlbeena sama jamono alladi ji nga xam ne xabara wi yoon na ila ahlil wabari jëm ci dëkkaale ñooñ àll bi ahlul wabar mooy ñooñ àll ahlul madar mooy ñooñ pays Mm-hmm. boobar kawar ak gëlëm lay doogu nooy ndax àll bi ñooy yar jur mm-hmm. mooy xogg ndax pay ñooy tabax mm-hmm. mooy xogg suuf sel bu baax a baax ilaa mu jaawarati ahlil wabari jëm ci dëkkaaleeg ñooñ xàll bi mu ne ca sama jamono yi wéyoon booba dama tànnoon daal jaxasoog waa xàll bi dëkk ci àll bi li li afuda ngir naa jàpp nufuusahum seeni bakkan mm-hmm. al abiya yu daaji bañ ci gàcce mm-hmm. ndax itam ñu ngi amee jikko yoo xam ne ci ñoom nga koy fekk mm-hmm. te jikko yu baax a baax lañ diggante mën a yaatal gan diggante rus yenn yi ci sa digganteeg nit diggante rus yenn yi ci xalal yu mel noonu ci dëkk xalal la gën a neex a jëlee ci dëkk maafil bada wëtti min aybin tudammu bihi mm-hmm. illa almuru'atu mm-hmm. wal ihsaanu mm-hmm. bil bidari mu ne xàll bi su fekkee am na sikk seen nit ñi leen rek mooy seen sikk mooy xam jom torop ak yaa mën a yaatal gan wasihatul jismi fiha xayru mm-hmm. xaafiyatin te ñoo gën a wér waa pay bi u ala al hadari mu ne jikko joo bon ak kay mm-hmm. ci ñoom la sax mm-hmm. ba wal haybu waddaa u ala al hadari mu ne daa jikko ju bon ak wéré di ñoom la sax bu ñoom la sax moo tax mu ne bëgg am am jikko yu xam ne jikko yu baax a baax a baax la a mm-hmm. daanaka ci ñoom rek nga ko mën a jëlee mm-hmm. te nag moo ne bëgg na jikko yooyu mm-hmm. te lim la wax nii dëgg la de lu gën a bari rek yaatal nit ñoom ñoo ko dàq lu gën a bëri itam rus yenn yi ci seen digganteeg nit wala rus yenn yi ci mbiru xaalal ci ñoom la gën a bëri li axuda ngir naa jàpp axda nufuusihim jàppal seeni bakkan mm-hmm. alabiya bu daaji bañ ci gàcce mm-hmm. waa sinatihim ak seeni lammiñ mm-hmm. al arabiya te yey koju arab te itam bëgg naa xamee seen dégg arab gi dëgg bu jàkk arab dëgg dëgg dëgg soo bëgg a dégg da ngay ci dëkki xàll yi ñooy ñi nga xam ne bu ñuy wax arab arab rek la ñuy wax waaye boo demee ci dëkk pays jaxasoo bi dafa bëri. Mhm. su ko defee jaxasoo boo nag. Mhm. day feeñ mhm. mu ngi mel ni fi mu ne nii rek wolof dëgg dëgg dëgg yu raxul dara. soo ko bëggee. muy wolof saalum saalum. ci dëkk àll yi ci saalum ngay dem. wolof joor joor. ci dëkk àll yi ci joor gi. ci ngay dem. Mm-hmm. waaye boo demee ci dëkk pays yi nag mm-hmm. jaxasoog nit ñi mm-hmm. ak jaxasoog tubaab yi daanaka wolof dëgg-dëgg doo ko dégg ah duñu wax wolof yi saalum saalum duñu wax wolof yi joor joor duñu wax wolof mu àgg duñu wax tubaab mu àgg te bëgg naa dégg arab loolu moo tax arab yi dañ daan def ku ci am sa doom mhm. da ko yóbbu ca dëkki xàll ya mhm. su demee ba tàggatu ci waxi arab mhm. nga doon ko indi ci pay bi bu dee yow ci pay nga dëkk mu ne fa samartu ma daal de tasmira man wagu koo xam ne laa yeloo du mu gàttañ lu joodan kem kàttanam su ko dee bu nekk nag su fa bëggee dëkk ña nekk Mm-hmm. nañ fa mën a dëkkee mm-hmm. nun ngay jéem di def mm-hmm. loolu moo tax ba ma demee damaa roy ci ñoom seen góor góorlu gi niñ nangoo sonnee rek ma nangu koo sonnee wa jaaltu ma def ma xara adribu di dox filaar di ci suuf si ci xur wana jar ak ci domo fu ci àll bi ma defaatana dem rek lu la nekkoon di def mm-hmm. ilaa anet tanaytu ba ma kotti ba ma faggu mm-hmm. xaj matan gétt mm-hmm. mooy gétt gu toll ci ñeent fukki gélém min a raaxiyati ci gélém wa sallatan ak gédd min a saaxiyati ci gàtt su ko defee may góorgóorlu comme ñoom rek dafut gàtt nangoo sàmm rek comme ñoom ba mujj naa am naa fa dara ci gélém lu xam ne ak gétt la mm-hmm. xam naa fa dara ci gàtt mm-hmm. ndax daanaka loolu mooy seen tiraga mm-hmm. su ma awaytu topp ma tàpp ila arabin jëm ci arab arda fi aqyaalin ñede ay jaraafi buur yàlla dogal ci biir li may wëreeloo sama jur ci àll bi maa fu xam ne dal naa fa ñama dal arab lañ ñu ne ñàkkut luñ man ci wàllu nguur mm-hmm. waam na aqwaalin tey boromi wax mm-hmm. tey itam xam nañ fasahatu yi mm-hmm. dañuy wax arabiya fusha faawtanoo nii ñu dëkkal ma am naa janabin gën jaay tere wuy wàlla ba ma demee lépp luñ man ci taxawu nit taxawoo nañ ma ko man naa mucc sama alal na mucc wa kullu ñu dagg mm. anni walis ma mm. xadda kulli naabin mm. ñëw kaag bépp bëñ lépp lu xam ne mën na maa gàllankoor ci dara wala mën na maa loree nenn rek ñi taxawu ma dalde dox suma digganteeg loola ma nekk ak ñoom comme kenn ci ñoom fa maa taa booba di dikkaluma xen dahum fa ñoom xam mun benn njàqare dara daal lu may tax a seen barab mm-hmm. mosuñ ma koy wan mm-hmm. du ci seen defin mm-hmm. du ci seen waxin wala xaraa mosul pëgg foofa safaati sama doj sa genn fet ilaa atlantu ba ma réer le nag fii laylatin ci guddi mu ni ratil badri gudaaji leer ci weer laqatan gëléem ak ratt xasirata darri guddaa ji bëri sow mm-hmm. mu genn guddi goo xam ne mm-hmm. xam naa jege ji na digg weer mm-hmm. dafay leer lool ma daal di réerlee gëlëm ah te gëlëm gi de gëlëm mu ratt ah nekk gëlëm gu bëri soow itam xam nga loolu neexul wàcc dëgg rek falam atif teeyuma nafsan bakkan bil xaayi talabiha ci nee na man daal gisuma ne toog ñàkk ko wuti daal mhm. gën na dëgg-dëgg mhm. eh, ndax alal itam dafa am xaq mhm. wayel xaye xablihaa ak sànni buumam xalaa xaribihaa ci joggareem wàccu ko nii rek rek lu daal gënaluma ndax fa ma jaaroon ba ko xam naa ne loolu la subaana ni may def ba ko loolu la alal laaj daal daa jóg alal mu ne fatada sartu ma dal de war mm-hmm. farasan fas mexdaaran mm-hmm. way gaaw a koon mm-hmm. ma dal war fas fas wu xam ne bu baax la waa taqantu ma bokk la danan guntu xataaran bay bang bangi haakoon ma wut sama ngànnaay bu baax ndax it nag booy dox guddi da nga war a xamee ngànnaay wasaraytu marañaan laylati sama guddi jamaa mboole fen mu ne ma defar ci mara mm-hmm. maa ngi moom da dox da dox ba bësa mm-hmm. a jóobu danaa dagg mm-hmm. kulla sajraa a jóobu danaa dagg al baydaa bi waa xatari may topp kulla sajraa bépp suusu bëri garab wa mardaa bépp suusu ndende mu ne may topp xàll léeg ma dugg ci ay gaj yu lëndëm léeg-léeg ma dugg ci ay ndend yu yato yato ilaa nasara ba biri mm-hmm. asubu suba mm-hmm. rayaat yi ay rayaam mm-hmm. dama fanaa dox ba bët set waaye yàlla te hoote addaane aji nodd ji ilaa salaat yi jëm julli suba ba nodd ka nodd ka nodd fajar bi wa hayya ala fa nasaltu ma dal di wàcci am matni rakubati walis gannaaw li ñu war mm-hmm. li adayil maktubati mm-hmm. ngir joxe farata bi setlu mm-hmm. bu baax a baax booba laa jóg ma julli farata fardu ak lazim ak waajib ak maktub ak hadmu yëpp benn la yëpp wal fardu wal waajibu qad tawafaqa kal hadmi wal lazimi maktubin yëpp benn tey nag bu baax a baax. Mm-hmm. li adaayil maktuba di joxe farata bi. Mm-hmm. su ma wultu topp ma waraat. Mm-hmm. fii sahwatiha. ci gannaaw ak gëlëm bi. wa faratu ma nattu. xam sahwatiha jeego. ba ma jullee ba àggal. dama dellu tegeaat ci gannaaw ak gëlëm gi. fa seeni dem bu baax a su ma wultu topp ma waraat. fii sax watihaa ci gannaaw ak gëlëm gi wa barastu manatu an sax watihaa jeeboom maseet ba man xadluha wasirtu may dox. Mm. mu ne moo julee ba àggal. Mm. dama teguwaat te koo fas wa rek. Mm. ne aywa. may dox. laa araadeen may gis asaran benn jeexit. illaa xafawtoo ndare boo xëyntu naa ko. Mm-hmm. lu ma gis lu lu luy niroog jeexit rek. Mm-hmm. dem naa xëñ mm-hmm. ma gis benn dongo. illaa alawtoo ndare bu xiig ba ca kaw kawe wala waadiyan du ma e gis wenn xur itam mm. illa jasaatu woon ndare bu bëtt naa mm-hmm. wala rakiban du ma e gis aji war mm-hmm. illa stadlaatu woon ndare bu lañ naa ko mm-hmm. lépp luy def ci lu réer daal maa ngi koy def tuuti rek moo def wajji dii te sama dëgg maa saalik ànd ak loolu yasaabu dana mu dem hadaran deneen wala yi jidu te du fekk mhm. wirduhoo doxam mhm. sadaran gong gi mhm. xanda yëngatu yi yëpp nag taxagut benn xam-xam bi xam ci li may waaw wa jiddi te sama dëgg ma dalik ànd ak loolu yasabu dana mu dem hadaran beneen wala yi jidu te du fekk wirduhoo doxam sadaran gong nag ma ko laajee du taral ma xamee ca dara dara dara dara loolee hmm. dégg nga ca wax bële la bokk hmm. ilaa xaanat ba jot hmm. sëkkatu am mayir tafak tàngoor wala bu hajirin lakkatu njolloor hmm. yusiru mu nge fàtteloo hmm. xaylaana xaylaan góor la xam hmm. ma yén ci may ya mu ne maag moom wi tat lool xàgg foo xam ne xaylaan lu muy bëgg-bëgg may ya man nay fàtte may ya ndég tatak tàngoor wi wa kaanate nekkoon na yow man debis at wala bu gën a min zillil xanaati ci keru guur ko mm-hmm. te jamono la boo xam ne mm-hmm. bëccëg bi day yàgg lool mm-hmm. tàngooru bëccëg bi day yàgg lool wa axarra te gën a tàng min damel miqalaa miqalaa bi ci ronga ñu miqalaa al miqalaa mooy jigéen ju xam ne day faral bu amee doom rek mu faatu mu bërin di jooy ronga ñu naqar te arab mooy ronga ñu naqar day tàng damel miqalaa dégg nga jigéen joo xam ne bu amee doom rek day dem. muy faral muy faral de jooy ronge ñu naqar. te arab muy ronge ñu naqar dafay tàng. waxaara te gën a tàng min damel mi xalaati ci dereti mi xalaat. fay xam te mu wóolu ne an nii man. illa wastakin na bu ma kerluwul. minal waqdati ci tata tàngoor bi. waasta himma te ma noppaloo mooy ma waas wala wala waasta jimma. amul tomb amul tomb ni ba astahamma astahimmala wa kira astajimmala min ele bind jiim istijma wala istijma astijim wa astahimma tema noppaloo bi riqdati ci nelaw ad na fat nii ad na fa nii songong loo ma alluxoo bu coono waa de xatte aju bi man soxo bunte ba tàngoor wi tat lool hmm. ma gis ne fi mu ne su ma dalluwul hmm. ma tuuti nelaw hmm. kon moom du ma ko nettali mën naa def ci àll loolu laa gis te nag njëriñ la nga fekk waaye xam nga ma wóolu ne an nii man in lam astakin ci tata tàngoor bi su ma seetul lu mel ni am mbaar ak a keppaar ma ne fa dallu tuuti waa fere waa tahim ma tema noppaloo mm-hmm. bi rex da si ci yaa lor moo tuuti nelaw mm-hmm. loolu su ma ko defulee mm-hmm. ad na fanii soomam loo ma alluxoogu coono coono dana ma gaje waale xatte aji bii ci man soma bu dee te comme du ma ko nekk ni lii daa woon fa hoccu ma jeng sarhatin jëm ci danjaama kasifatil axsaan bu daa ji sal jiibaan xaar wariqatil abnaan bu daa ji sëq ji banqaas fekk ci suñ pegg am na benn garab bu mag bu fa ne mm-hmm. bu garab bu yaatu la kër gi dafa yaatu mm-hmm. te dafa sëq sama kër gi law mm-hmm. ma jëmale garab googu li waxal wi ra ngir naa nelaw taxtaxaa ci ron garab googu ci ron mu xëy ri baan ba timi mu ne su ma demee ci kër googu xendal fa ah, man faa nelaw su jant bi sooyee tàngoor wi dal mm-hmm. ma mën a topp ak guddi mm-hmm. noonu laa xalaatee mm-hmm. fa wallaahi gis naa ci yàlla mastar waa xëñtuwut na ko si sama noppi wala saraaxa noppaluwut farati sama fas hatta nafartu lu may ma xool ila saanihin jëm ci aji gaar fi hayati sa'ihin ci melawaji dox balaa may tàmbalee tekki daal la may nidu mooy kuy dox ba am si fi daal am bëreelu tar mastar waxa xañ tuut na ko si sama nokk yow gut bi genn xañ de mooy hmm. kaf te gu ma daana kaf hmm. wala saraa noppaluut para si sama fas hmm. hatta na fas lu may ma xool ila saani hin jëm ci aji gaar si hay ati saay hin ci melo aji gaar woo wote moom yan tëj moom mu ngee mm-hmm. lu ñaati sama forlu waay mm-hmm. mu mel ni sama nekk la jëm si di mm-hmm. waaye sëgg te mu ngee gaaw ila bu xaatee jëm ci sama pàkk dox bu gaaw it lay dox nag fa karitu masjid kene yaa jëwa jengam ila mu aji jëm ci sama jengu waay te man daal fii daal bëgguma daal ku ma fi xamam ak jamono yu wóor a di jamono fekk xam nga ci moom dara hmm. ak digg àll bii hmm. ak jamono jowóore bii hmm. nga di ko toog mu di ko toog mu daal mën dala sama ba këritu masjid ine yaa jewoo jengam ilaa ma aji jëm ci sama jengo waay ba taatu ma muslu billahi ci yàlla min sarri kulli mu faji ci hayu bépp faji bett ak ma jàng ne may xam ci léemu a ñaan yàlla mucc ci hayam su ma tarajee du topp ma yaakaar ay yatasadda ba mu gaara mm-hmm. mun si dan di aji xamle mm-hmm. aw yatabadda walla mu feeñ mm-hmm. mun si dan di aji gindi ma yaakaar ne bu dikkee daf ma ne la man de waaye far naa xal ci réew mu ne ma di fekk naa bara sàngam ñu ba déclaré gi réew loolu la yaakaar fala tarab ba fala ma tarab ba mu jege see min saxaati ci sama danjaama bi mu jege tey ci garab gi ma jege. Mm-hmm. ki mm-hmm. te mu jege nja xullu de wàcc te ci sama ding rek. Mm-hmm. xam ne mu ngi bëgg wàcc fi ma ne. alfayto fekk naa ko feexa naa ko suñu góor gi ak solo ji. ne kaa ko séddee solo mu tasi hat mbir moom mu daa ji gañaayoo. bi jira bi ci gafakaam. mu di ci digg. wa muttaxinan te daa ji bokk mm-hmm. urbata sañ waa bi mm-hmm. yére waay waajaye dagguwaay boo xam mm-hmm. mu nga amee bagage tukki xetam ak jaasim ak yooyu fa aana sa nii mu wéttale ma mu wéttale ma it war a da ba mu dikkee man nag ba ma ko gisee daal la ba ne sama wéet ay moom jeex waan saa nii mu fàtte loo ma maa nga xam ne sarada dangal xaw naa fàtte sama gëlëm su ma taw daltoo su ma taw daxtoo sopp ma sàkku ko leerlu min ay na ci fan la tukkee affaire booy jeexital mu ne ko waaye yow foofu wax wa kay fa ma jëru mu daal di ba di han ci juri. Mm-hmm. mu buute wey benn xalaat day. Mm-hmm. jiituwul. Mm-hmm. wala mu yëqul waxut ii han tegul. waxut ma déglu ma la ba may waxaat la tàmbali wey lii. dégg nga. kulli mustadnin daxilata amri أبدت مصرا فبيتي غرفة الخال والنديم جساسا ليس ليس لي ما أساو إنها إن فات وأحسن إن حاول الزمان ابتداسا غير أني أبيت خلوا من الهم ونفسي عن الأذى منها ñu jàngal loolu dafay bëgg a gudd. qul waxal li mu tànneen ñaar aji laajte. ku wuta xam. daxilata amri dëgg-dëgg sama mbir baatina sama mbir mm-hmm. ne ko la ka ñaan la hendi fi man karamatan tedd nga waxasasatan ak tedd mm-hmm. ne ko ana mm-hmm. karamatan dana ma la ka ñaan hendi fi man waxasasatan ne ko ana ma benn jëw bi ardin maa ngi nekk ci diggante dagg suuf fa ardin topp geneen suuf usuran ak ci àll xam ko asatin toog beneen àll mm-hmm. ne ko man daal maa ngi wëree nii mm-hmm. tey fii ëllëg fële rek mm-hmm. ah, yow man bi misr wa yow man bi naar wa yow man bi hijr eh, eh. eh, ana man maa bay na jaww bi ardin maa ngi nekk ci diggante dagg suuf faar del topp suuf mhm. wasuran ak rañaan fii ma fasatin ci àll mhm. fa ma fasatin topp àll mhm. saa di yow sama yóbbal asaydu mooy rab wal ma tiyetu waru waay wi naa lii mooy sama dal wajihaat yi sama bagaas daal aljiraabu mooy gafaka gi ma gàddu wala ma kàddu ak yeneen bagaas ma diisal amoo ko waru waay mu war a topp ko joone amoo ko ndax damay damay li ma am ci lay dund rek. ay pexe ci lay wéyee. ba isa ma abatu su ma wàccee nag misram dëkk. fa bayti sama néeg. wasfatul xaalim néeg lay doon ci hôtel. wala diimu aji naanu ale sama. yu saa ay kayitu dem bind la. te it man aw ma kenn benn affaire même bu ma demee ci biir itam day mm-hmm. ca hôtel ba lay dem mm-hmm. ma jël fa benn chambre mm-hmm. amu itam kenn ku may war a xaritoon di toog ak moom lu may kii ji nga gis mu di lii rek bind rek loolu la wax de wa itam ahabat bu ma wàccee misran njénne su ma fu bay ci sama néeg xurfatul xaar mm-hmm. néeg lay doon ci hôtel ba damay dem ci hôtel ma jël fa samba rek mm-hmm. boo xam ne mën naa koy fay mm-hmm. nekk fa nekk ci liberté bu matala na bii mu aji naanu aale sama jusaatatun ay kayit la ki may wéttu lanteel nag kayit yi ñu bind damay ko jàng rek la en sama kamin fi duna sarju sabihin wa xayru jalisin fi samani kitab xëy na loolu lay dëgëral ci boppam. dégg nga. layta li ñaalul ma. Mm-hmm. maa li nga xam ne usaaw def na ma naqadal. Mm-hmm. wala def na ma jàqaloo. Mm-hmm. in faata bu faatee. aw axsanu wala may jàq. in xawala bu sàkkoo asamaanu jamono. ibtisal góore kii man yore wu ma lu may tàggale yore wu ma. xayra an ni ndare man daal mm-hmm. habitu danaa fanaan mm-hmm. xilwan daaji feex mel xam mi di jàqare mm-hmm. man daal benn jaaxle daal bu may tenn la waaw wana fi sama bakkan mun haasatun aji bëri aji aji berul aji sori la ana sabari jàqare ar xudu dana yandoor alay la guddi min ajab kon loolu yàlla allay la guddi mi la jam ni feera sama mbaram dégg nga waxal bi sama xol baaridun aji sedd la min xararatin ci tango waxaratu dina métti na ah na ko Vale. ma gis loo xam ne man na may tàggaleeg sama sago daal mm. la ubali déet may faale mm. min ayi kaasin ci ban kaas mm. dafa waxtu laa nampee laa naanee wala ma xalawatun faale huma lu neex mooy neex mi masasatin ci maa ngi dund ci liberté mm-hmm. sallaw nag mm-hmm. lu am rek doy na mm-hmm. xooluma daray kenn ñeewuma kenn daram day sama wala asta su duma daganal araj xaala ba ma defat abdul la toroxaande majaasan muy wéyuwaay ila tasanni ijaasatin jëm si jàppandig may man amul lenn lenn lu ma hmm. loo xam ne dama koy nangoo xamee. Hmm. ci yoon woo xam ne déggoo xoolal sama xiima. Hmm. man gor pire la. ni gor di xamee rek. la bëgg di xamee. lépp loo xam ne déggoo la rek. kooku dama ko jégg. laa téere wala asta jiisu den may daganal. ana ñaala ba ma defar mm-hmm. addul la toroxaande majaasan mm-hmm. muy wéyu waay muy yoon mm-hmm. muy jéggi waay ilaa tasanni ijaasatin jëm si jàppandik may waysa wa waysa matlabun bu xoddee càkkute nga firi xaale kasa xullatal xoo xullatal xaari ko dayal gàcce fo boo dan ak sori li man ñaal koo xam ne yëroomu dana mu sàkku nijaasa wa teew lépp lu xam ne xaminu gàcce la mm-hmm. man ku ko gërëm ci boppam mm-hmm. génn naa ci yow mm-hmm. waaw way daa matlabun bu xoddee càkkutéef nga firi xaale kasa xullatal xaari ko dayal gàcce fo bon dan xoonaa sori li man ñaar koo xam ne yërumu dana mu sàkku ne jaasaroo teewam waaw lépp xam ne gàcce la man ku gërëm ku gërëm ci mbiram génn naa ci wa ma tëx tëx waxtu wu jaayoo mhm. nig sun ku suufe mooy ñoxor xopp mhm. li danaa ati ngir suufe xaa mhm. ba sib tafin sama jikko ti ay jikko watti sa ak jaayoo man nit ku soof buy damoo lu soof lam def nam damum nga daf may soof jikkoom ba daf may soof daf may fidd wamata tëdd waxtu wu jaayoo mm. nig sun ñoxo xob suufe mm. li danaa ti ngir suufe xanfa mm. dafay sib tamit sama jikko di baax wax ay jikkoom way wuti la fal ma naa yaa tànn naa dee wala danaa yaa du caageen suufe am na loo xam ne bu sësee muñ ba dee a ko gën waru ko bu jinaa sëtee war tàdd xëyrun moo gën mhm. min rukoobil xinaa xanaa mhm. ci war lu bon mhm. am na loo xam ne nga gis te nga gis bàmmeelam a ko gën parce que waxtaan man na ñàkk te torox moom man na ñàkk gannaaw torox dee ñàkk a torox dee nag jarul kenn di toroxal boppam waru kóobul jinaasati war tàdd dee nag nga jëna mu tëdd xayrun moo gën min rukoobil xanaa ci war lu ñaaw lii la wax de ma ne ko daal mm-hmm. daal nii la waxee tontu woon ma daanaka mm-hmm. su rafaa topp mu yëkkati ilayee jëm ci man sarfoo gisam mm-hmm. bi ma koy laaj bi mu waxee lii daf ma téen wa qaala mu ne li amrin maa jadaa qatirun amrin ngir mbir maa mu mën a doon jadaa la njoob qatirun qatir am foofa bakkanam ah dara la <laughs> la indi faaxabatoo ma xamal ko. xabara naatati. solo bi sama gëlëm. asaare xa budaaji wët. budaaji dem. wa ma ak li nga ne aanaytoo jànkuwante naa ak moom. fi yow mi ci sama bëccëg bu tey bi. wal bare ak guddi ma ne ko gëlëm goo baax la réer li. moom laa di wut. bi daal gëmmu mu ko dox laa fanaane. tey jii itam dox la yendoo ba bi may fekk ci garab saak ak seer sama li nga xam ne ana yi tuxoo jànkuwante na ak fi yow mi yi ci mm-hmm. fi yow mi ci sama tey mm-hmm. wal bàyyi ak guddi bii mm-hmm. fa qaala mu ne daan bàyyi ali ti faata geesoo ila ma jënti ne xam ne faata faat na na wa tima ak yëkkate bu gi ma jënti ne xam ne taxa sànne bu li nga ñàkk rek ci génne sa xel soo ko def wuti du la ko taxaw la asra ibbu mm. illa ma lam yafut tamaam mm. mu ne li ma mm. jar lu ma yenn wala abitu ala ma fata hasrana waaye li ma rëccit nag ma teg yenn yi de <laughs> loolu rek illa ma lam yafut tamaam waaw mu ne li ma rëccut du ma tàggaleeg wala abitu ala ma fata hasrata mm-hmm. li mm-hmm. ma rëccit nag ma tegee nii mm-hmm. dama bàyyi alitifaata geesoo yi la ma jël di leen xam ne faata faat na wati ma ak yëkkatewu gis yi la ma jël di leen xam ne taasa ne wala taasa bal jàq ala ma ci li nga xam ne saaba dem na wala adoo doonte moom waadin xur la min saabin ci wurus nga xam ne ki nga ko rek ndax kii du rek dimbale ci wutam de ah, Mm-hmm. wala tastamil bal jéngaloo mm-hmm. man koo xam ne maa la jégg wali sa kattan wala sa wàlla mm-hmm. waadrama te mu taxal naara tabar yii ka safaraw saytani njàqare walaw kaana doonte nekk na mu ibna buyi ka sa doomi bopp sa doomi digg aw sa xiiqa wala muy xaritu sa léegi daal ki la jox gannaaw. Mm. bëgg laa teg coono tàggaloo. kooku mm. man koo muñal. Mm. sooy boo muy sa doomi bopp. sooy boo muy sa mbokkam man ku xam ne maa la jéng na mu. an rihika wali sa wàll. wa abramate mu taxal naara tabarihika. safaraaw say tati njàqare. walaw kaana doonte nekk na mu. ibna boohika de sa doomi bopp. aw saqiqa rohik. wala muy xaritu sa xarkanam. xaritu saro xaritu saro su ma xaala topp mu ne ma xalaka ndax ñaan na la fi ci bu nga hendala mm-hmm. wata taxaama te nga xaaru nana wal qiila ak gis dallu mos ne law tuuti daal mm-hmm. te noppulu waxtaan dana ci baax mm-hmm. loolu laa ko wax dellu ma xalaka fi an sa xiila ci bu nga xeer na la nelaw bëccëg wata taxaama te nga xaaru an alqaala nana wal xiila ak neef fa yi am daawu taxabi way songong lañ ngir coono ndax de fi coono nga àgg na foo xam ne jëmm yi noppal wal hajratu njoloor li saatu laa bin borom tàkk tàkkan la tàngoor wi tar na ba nga xam ne set ko seetlu tuuti. Mm-hmm. baax na. Mm-hmm. wala yas xoolal mm-hmm. te duy xomb. alxaatira xelaat. wa yu na seeta te duy sawarloo. alfatira ji tayal. te xayla dil hawaajir. lu mel ni nelaw yu bëccëg. Mm-hmm. dana topp bëccëg tàng mm-hmm. nga mos tuuti nelaw mm-hmm. dana de dalal xel de dana de sawaat looy cër ni mu ko waxee noonu la demee wa xusuusan rawatina sax fii sahray naajir ci ñaari weer yi naajir rawati sax ñaari weer yi nga xam ne yu tàng tàng la mooy weeru yooni yu ak weeru yooni yu ah ci def na ñaari weer ci kanam ñaari weer yi jiitu wax sax Abu ne xaalis ne fa qultu ma ne ko saaga loolu ko iléegi jëm na wa maa uri den may nam hmm. ana suqa ba ma sonal la xale ci yow hmm. ma ne ko daal moom sa waaw hmm. mooy sama waaw lépp loo xam dafa lay man la bëgguma di ko def loolu neex daal lay ut faftaraata mu daal de lal kay atruba suuf si wata jaxam mu tëdd mu daal de tàlle kay ci suuf si kay waasara mu feeñal ne. am naka luy mbir xaraajaxaa nelaw na. commencé riital dënn bi ngay de xëral. mel nelaw. wattafaqtu mm-hmm. ma daal di sóolu xalaat axrusa ci moom wattuwaat sama fas wi mm-hmm. wala raxasa te du ma gëmmentu waaye xam naa ko wóolu uma ko mm-hmm. du muy xaral maa ngi sóolu ne du ma nelaw wóolu uma ko faaxasan nii jàppuma asinatu gëmmentu il sumat ba nosee ala asinatu làmmeñ waaye xam nga fanaan nelawoo xendoo dox ba digg bëccëg mm-hmm. nga tëdd ci kër waxalaa kenn mm-hmm. ba nga nelawee doo ko yëg mm-hmm. ma nelaw falam ufiq xew wuma illaa a laylu ndare guddi gi xat tawallaja tabbina wan nañ mu biddiw yi xat tawallaja leer nañ fenk nañ wala saroj yi du caggeen abu sarini saroj yi wala musraj du caggeen fas wañ tegal ma daal bala maa xewu jant bi dama yow rek gën a biddiw mm-hmm. gisuma Abu Sirin mm-hmm. gisuma fas léegi mm-hmm. ne sama fas wa ko bitt ma fanaan bi laylatin ci guddi naabixiyatin kay ko jub naabixa wax sanin ak njàqare yaqobiyatin kay ko jub yaqob muy guddi gu métti ci man usaabiru maa ngi jànkuwanteer al wujuuh wedem maa ngi jaaxle xamul lu may wax usaahiru maa ngi foglanteet ak nu jóoma biddiw yi maa mm-hmm. ngi jàkkaarloog biddiw yi mm-hmm. ubakkiru dana xalam taaratan jamono mm-hmm. firuj la tii ci sama leru léeg-léeg ma ne man daal na may def ba dox ci ak sama dëkk moom xaw ma waxraa ci beneen jamono firañaati ci sama wëññi man daal su ma bëgg a doxal tànkoon lu bale wëññi bi ñu jàng loolu beneen yoon itam sama gëlëm hmm. man na maa def ba ñibbi saka hmm. dox ak tànk bi mu hmm. fanaanee xoole rek ilaan wataxa ba leer lii ñaar ma mooy ba feeñ xendaf tiraari soxri daw yi foofu mu ñëw waaye leer gi fi wajil jawwi ci xar kanamu jaww ji. Hmm. raakibun aji war yexidu kook dana mu gaaw fi dawi ci àll. Hmm. mu ne bi bëdde huy huy. Hmm. ma seen ko war ak gëlëm. mu ngi dàq gëlëm gaa ngi daw ba baax a baax. waaw digg àll bi laa ne. fanaa nee nii. bi bëdde huy huy. laa seen ko war gëlëm. di dàq di daw bu baax a baax. Mm-hmm. ilaan wadaa ba feeñ mm-hmm. wala nga ne ba leer lii ñaal ma mm-hmm. rakibun ajiwaat yaxidu kook dana mu gaaw fi dawwi ci jaww fi dawwi ci àll bi hen ndaw siraari saxri daw yi fu muñe reefu waaye leer gi fi wajil jawwi ci xarkar mu jaww faal maatu ma junju mm. ilayhi jëm ci moom mm. bi saw bi ci sama malaan ma yëkkati ko sama malaan bu baax pour mu séen ma mm. ndeg mu xam ne kii di di bi ku waaji dimbale wala jawtu ma yaakaar ay yohan rija ba mu jàddat ilaa saw bi jëm ci sama wàll ma yaakaar ne yéen ma ne dana ko dikkal ak ne bu doon moom mu jàdd ne ma num doon loolu laa foo war mu lay waaye falam ya ba faale wul mhm. bi ilmaayee ci sama junj mhm. yëkkati gëma yëkkati sama mala mhm. taxul mu faale ma de wala awaa yërëmul littiyaayee sama lakkatu xol métti lu gi may métti lu gi ci diggaal taxul xolam yëgee ko neen na de amul benn yërma falam ya ba faale wul bi ilmaayee ci sama junj wala waa yërëm mu lil tiyaane ci lakk ak sama xol mhm. jëngu jëm ci man mhm. ba rek mhm. mooy dem na xaala hiina tihi ci yoonam mu ngee dem ci dalam fale wu ma ba li fi nekk saara dox na xaala ci dalam mu ngee demee sagoom rek mel ni ku yëgu dara waas maan te mu boomee ma bi femi ihanati yi ci fett ak doxaa dalam mm-hmm. muy yëgadi boo xam ne dara dara desu ci mm-hmm. moom la ma mm-hmm. li may yoxoo ko caalit yëpp daal moom mu ngee dem comme ni mu doon demee rek boo kenn waxagu daal faaw fattu ma gaaw ilayhi jëm ci moom mu ne ma daw jëmale ko gëlëm la war maa ngee dox moom mu ngee doxee sago man maa ngi daw dawe bëgg a mucc ma daw jëmaliku hmm. li axtar di fa ngir naa sàkku ci moom mu togg ma hmm. pour na ma porté hmm. waax tamit la ak ma xenu taxasru fa rëylu so xeboo mu ciiku ma so xebo mu masku ma waaye loolu lépp moo ma gënal dee <laughs> dee jaale ma dawa daw rek waaw fattu ma gaaw ilayhi jëm ci moom li axtar di fa ngir naa sàkku mu togg ma waxtami la ak ma henu mm-hmm. taxasrufoo reynom mm-hmm. falamma adraktuhu ba mu ko jotee mm-hmm. bandal ay ni ci gannaaw coono ma daw ba sonn door ko jot ba mu ko jotee nag waajal te ma wëndeel fii ci moom masraxan xay ni wër waay bët xool ko bu baax xool war wajat fekk naa naqati sama gëlëm gi ma doon matti yetoo muy waruwaay wa dallati sama réerit luxtatoo muy faram ba ma ko xoolee ndeke man gëlëm gi ma doon ba mu yóbbee ma fanaan xàll moom mooy ki ko far war ba ma kasabtu saxuma an asaytoo ba ma xotti xat ko xan sanaa mi haa wala jagañu gëlëm gi man ke ba ma xam ne gëlëm gi boobu laa ko ñoddi bàpp ko mu hmm. koy bala ñuy wax na waa caay hmm. <laughs> waaw mais bu ma xam ne hmm. li ma njëkk def moo ñor di ko sànni ko caxaan la ba na waa caay waaw <laughs> na waa ko ci kaw naan maa ko moom muy caw muy wi du ma ko def ne maa ko ko ñor rek wàcce ko waaw boo ko mu dàq mu mu dàq dawal nooy def man kay waxati wu ma xëy bu ma xamee ne maa ko rek li ma njëkk a def mooy xotti ko mu daal maa moom nag ñu bokk taxaw. Hmm. waaw mbir <laughs> la rek waaye nit mbir la rek hmm. <laughs> waaw. Hmm. bu ko biroon maa ko moom de. waaye man naa cawa caw dem de. <laughs> waaw c'est ça man daal bu ma kasab saxuma. ana say tool lu may mu xotti ko rek. an sanaa mi a wëli ma ñoddi pet noska gëlëm gi. ba ma ko gaaw téyee noonu ko bi fekk noonu ko bàyyi noonu ci loxoom moom mm-hmm. waaye gannaaw wàcc na ma mm-hmm. féq mu féq ma mm-hmm. wax loo ñaan ko ma ne ko ana man saahibuha may boromam wa mudilluha te may ci góoreel man maa ko moom de gëlëm bi foo ko mën a jëlee xaali jàmbur wali ñeexal na ma ritluha soob wanas luha ngir teem dara nga ci moom fala tëkkun bul nekk ka asan ba demel ni asan bu tamaa fatanama ba tunee ba tawa nga sonn le watanama te nga sonn soo jëfandikoo tamaa bañ a doyloo lii sa cër muy jikkoob asan coono moo la ciy fekk ak sonnal ma ngay def waaye gëlëm moom sa gëlëm te mun duma ko koy bay faaxasa mu xara yal daxu di lakk di matt wayes yi te muy yooxu mm-hmm. mooy moo lay lor mm-hmm. waaye moo lay tawat mm-hmm. xam nga jiit bu la fekkee mooy njëkk a def ci moo lor waaye moo njëkk a yooxu yaa ngi ah axasa yalzam wayes yi mooy moo lay lor waaye moo lay tawat ba axasa mu xaraf yal daxu di màcc di matt wayes yi te muy xaaju wayes taxiwu muy wow xar kanam ngir mooy muy dëër bopp muy wow xar kanam wala yastahi te du ca am benn kerta mhm. mu jàllar be ko lang ci sama gëlëm gi mhm. ne du ma ko jox mhm. xamee sama alal amu ci benn kerta wa bay na wa diggante ba moom yan soo dana mu ñëgal mooy dana mu dëgër waye liinu te dana nooy wayastasidu te muy gaynde gayndelu wayastakiinu te muy mokk mokk lu léeg xam nga dogu naa ma maa ko moom maa nekk ci dëgg te li ma nekk moom ak lu mu ñàng rek dana dem ba yëg ne néew doole dikkal na ko waaye nag est ce que dana gaaw a nangu néew doole googu ci biir nag fi mu ne néew doole dikkal na ko te mënul nangu nag is ci bett rek xafiya naa na yow bu seydi ñu dem ba mu xamul bi jeexale ndax day dumal bi nénga ndax xam te xamuñ beneen danañu mën a foofu rek Abu Zaydin daal mm-hmm. di dikk laa bi san de aji hoddoo jil namiri darat tene mm-hmm. Abu Zaydin dikk ni mar moo mm-hmm. man te daa ji bett hujuma sayli kem bett ak yol nde almun hamir bu daa ji yol dafa dalak ñu daal dégguñ ba ñu yëngatu mel ni yol nde rek buy daanu ak bu faqirtu ma ragal wallaahi mm-hmm. ay yëkkoona bu nekkat yow mu woo teyam ka am si ni ki démbam mm-hmm. wa badroo nekk weeram mit la sam si kem jantam mm-hmm. faala xasawtu ma héeg bil xari bay ne ci ñaar ñu wute woon xarfu xam ne dem nañ delsi wuñ waa waa fiira ma mujj xabaran de solo baax da aynin ci gannaaw jëm ma ragal mu dikk feeñal fi meloom gi yóbbooti gëlëm gi xam naa moom ba sama waa kër moom dañoo pare man dootu mu ñib mukk xanaa boo woon na fi rek moo ca def hmm. loolu laa ragal de hmm. falam ara gisuma hmm. ilaa askartu ndare ma fàttalil ko alxooda kóolëre yi almansiyata yére yu ñu fàtte wal faalata ak jëf al amsiyata jële ko ñu téem ma gis ne fi mu daal moom rek mm. ma ne yow fi ma jaar ak mm. ak ni ma def dem mm. ci xàll bii wa naadatuhu laaha ma laaj ko ci yàlla awaafaa ndax dafa dikk li talafi ngir dabatal am wala dafa dikk li maa ngir li nga xam ne fii nekk na ci idla fi sama xalaat ma ne ko su meree sa yoonu démb wëri xam naa man ci laa di def hmm. waaw su li sama hit la nag hmm. defe nu tey naa jagal dara ci démb hmm. waaye lu démb la ma su fekkee bañoo maa rey doo ko baaw loolu laa ko wax fa qaala mu ne ma maasallahi yàlla tere an ujihi samay jekkali mi ku ñu jam sama awasila walla may jokk xaruur yi sama ngalawal xaruur bi samuum yi ci sama ngalawal samuum mooy ngalawal bëccëg loo loo tàng mooy samuum ak xaruur dégg nga mu man nag baaxoowuma teg nit lu métti fu dóogut ma di ko defar awasila walla may jokk xaruur yi sama ngalawal xaruur mooy ngalawal bëccëg lu tàng bi samuum yi ci sama ngalawal samuum mooy ngelawal guddi lu tàng mm-hmm. xëy na loolu lañ ci jëm mm-hmm. xaalis nee na ban li fi nekk waa dikkal naa rek mm-hmm. li axbura ngir naa xam ngir naa xam ku na xaalika dëgg-dëgg sa mbir rek dama bëggoon xam loo nekkee rek waa koona ak ma nekk yi minan de ndeyjoor ah, li si maalika ñaa sa càmmooy ndax xaw naa man ma lore it maa la war a dimbale rek ba fekkee fu ñu la war a dimbalee la war a dimbalee ma dimbale la. mais mm. loolu la mu mm. dal henda saalika foofale. Mm. jaasi sama xel. sama tiitaange booba la daal jeesu mooy xel. parce que kana dal de dal henda saalika foofale. jaasi sama xel. wan jaabu ñeeku. istihaasi sama wéet. weday xol gëma yëgoon daldi di dañ hmm. waar laxtoo ma xamal ko tilaa lëqaati dëgg-dëgg gële mu ratt gi hmm. wa ko en sahibi hmm. ak musóor ak sama waaji muuroo ak sama waaji bil xihati ci waw xar kanam ngir ñàkk ger mu wax ko gi nim demee na ko yow hut ko moo ñu dajale woon ci àll bi wax ko ni ci kii langee taamu ji benn ker la ko mm-hmm. moo tax waat naa too ma xamal ko tilaa liqaati dëgg gi mm-hmm. wa tabar ko saahibi mm-hmm. ak musóor ak sama waaji bil xeexasi ci waw xar kanam ngir ñàkk kersa ma wax gëlem gi ni mu ne ko xam nga ne gii mu war doon ñu dajee fañ ci digg àll ba léegi nag kii wóor na ko ne moomu ko te bàyyiwul xel ma mu ne ko fa nadara mu xool moom abu zaydin ilayhi jëm ci waa ji nadara laytil hen riisati kem xool ak gayndeeb gol ilal farisati jëm ci rab mu bëgg fàdd mu xool ko xool bu ñàng daal su ma asran topp mu jubale xibala hoofu wàllu waa ji aduma buntu xam mu génne ngànnaayam wan ko waa qasama mu giñalal lëxoo ñaal ko bi mm-hmm. man ci ki nga xam ne anaara na mu asuba suba layen mm-hmm. la wen ji su muccut man jës suba bi mucc waay weñ mm-hmm. wayar da te mu gërëm bil iyaa bi ci ñib minal xanimati ci màng la yori dana dana rotal se naana woo guntu xam wari da woo sadditu wari da mu ne ko rocceeku ji ne motta xafal Mm-hmm. su fekkee daal moom moom moom bëgg nga sa bakkan mm-hmm. sooy ba nga nangu ñëwee loxoy bu mm-hmm. duut kii te sa xol bi la jëm fii daal lay rey jaal la bi ñëw ci la bi la ju su muccut man ja subaa bi mucc waay weñ te mooy roccee ko daw wayax da te mu gërëm bi iyaa bi ci ñib minal xanimati ci màng jot bakkanam bi gënal ko lu muy war a tey mm-hmm. su deful lool mm-hmm. la yoori danna dana rotal si laa noo guntu xam waridoo sabitu waridoo mm-hmm. wala yow jaxal na te dana métti tale bi ci moom waridoo ay doom waa sa doom yi dañ jirim de bu waridoo ak soppe ay soppe dañ ñàkk seen waay soo bañee laa sa doom yi day jirim soppe yi wii day gileemu génne mu ne fa na basa waa ji sànni si maamal naqati dox ka gëlëm gi mhm. waxaasa mu rëcc daw mhm. waxaasa mu daw mooy mu daw mu daw mhm. waaf la ta mu rëcc wala wate ñaan na ko busaa sunu galawal mu ngi sànni galaw mu ngi te taw def fa qaala dal wax lii ñaan ma abu zeydin abu zeydin ne ma tasallama jëlal gëlëm gi ah, wa tasallama te nga war wala jegeñ bi fa innaha naka li ihdal husna yeyni kenn la ci ñaari màgg yi suñ la ci reyoon sa yit ngay doon ko jotee na jaaxle ci safar bi alxaniima wa sahaada mooy alxusna yaa ngi kenn nga ci am wawaylun mel na mbugal ahwanu moo gën a doxali ñu dugal leen si ñaari góor xam naa façon mu xañ na doo mm-hmm. waaye nag wax dëgg yàlla. Mm-hmm. fa te am gëlëm. Mm-hmm. moo xaw a gën a xaw a boole mu fa nekk. qaala al Haaris ibnu Hammaam Haaris nee na. fa ma gëlëm. bay na laa buy abi sëriñ ci diggante yàlla bu sëriñ. usuuri ak santam. loolu xam na ko ko def. ma def démb ak ma defal tey mm-hmm. xam nga daal du ma ko def mm-hmm. wasinata nafe yi mm-hmm. ak peese bi duri yi ci loram dama seet su ma dimbale moo ëpp li ma yàqal ah xanaa ma gërëm ko rek su fekkee li ma yàqal moo ëpp nag wéy di ba mere loolu lay xelaat kaan na woo daanaka bu seydin noo jiyee lef na ko bisaati sadri ci mbóotam sama dënn mel ni dafa xam li ci sama xel aw takkaana wala jisaane na muur na sirri sama biir xol xaama dafa daal dafa am kasfu mu ne lii laa fa fa fa xaabala ni mu jàkkaarloog man bi wajhin ci xar kanam taliqin bu daa ji tànn waan sada mu sadee bi lisaanin ci làmmiñ taliqin bu daa ji fasaha mu jàkkaarloo man ci telmay lu fi réegu wëy wëy yaa mm-hmm. axil xaamila daymi mm-hmm. duna ixwaani wa qawmi mm-hmm. iyakun saaka amsi falaqad sarraka yawmi waxtafi saaka liyaasa waxtari surri wa nafsi yaa axi ayow sama mbokk alxaamila kuraaji hanu daymi sama tooñaange doon ixwaat yi samay bokk wa qawm yaa samay bokk. Mm-hmm. ah mi nga xam ne ma def la du def kenn. Mm-hmm. yéen kon bu nekkee saa ka dala naqari am si sama démb mm-hmm. faqat sarraka. loolu la ne yow mi sama tey de. ah xam naa démb si kon nga waaye tey kontaan nga de. ah waxta bi na nga jéggale saa ka la rek lu démb la. mais asa ngir lii rek lu tey xanaa nga bañ maa meree nga bañ maa jàppee lu yëmb la rek te bañ maa gërëm sax tey wattari nga sànne suuf yi sant ma wala lu ak yedd ma su ma xaala mu ne ana man tayeku na ji mer la man jamono bii mu ko neex dara wante yow ma yeku na ji ragal ma danga man gana daw ma ay te yow ana mun ta yëpp la mer la waa ndee mu yëpp nag ragal ba keefu mu joxe gannaaw yàgg yi nga dagg ardi garab suuf si wayal ko du muy faj kër ko woo mu alam ay maal din bu mu jëfe wala mu jox gannaaw daal tamasam de dem mais fi maa daw di ma war waxtu ma dellu li tiyati ci suma jubluwaay sama yoon. xataa hmm. wasal bi ma jotee ak ilaa hillati jëm ci suma wàccuwaay. maa hmm. del la tey yaa ci gannaaw jumalu mag la ay ay ay jomale hmm. jumalu ndaw la. wala ay jomale ju mag ja. baax na boobu andi ko soo